mille francs hmm. maa wax lii waaw kon nag di ñaan yàlla yàlla nañ ko téye ay déwén déwén ci barke yonent bi amin amin amin amin Moustapha boo paree sa bul coupé wax dëgg yàlla ñu jël si suuf wax la na ngay def ba jël si sa dégg nga waaw waaw waaw nekk si jàmm mbokk yi mi ngi noonu gis nga ni nañ koy defee di joxe ndéwénel gi wax dëgg yàlla yéene ko moom tey ci bisu tabaski bi waaye mbokk yi dafa am ndaanaan woo xamante ni nii kenn dootu ko présenté ci réew mi di Mouride Sadikh non seulement dëkk Ndar di avocat boo xamante ni ni kenn dootu ko présenté toccu leen ma ki nga xamante ni ni mooy maître Madické Niang salaamaaleykum salaamaaleykum na ngeen def maître Madické Niang ci jàmm macha allah mbokk yi mi ngi noonu kii sunu gan gi nga xamante ni nii mooy maître Madické Niang tey daf noonu nangul ñëw tey ci bisu it bi ñëw bëgg a partager ñun maître Madické Niang maa ngi lay nuyu maa ngi leen di fay di ñaanal sénégalais yëpp jàmm di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kullu murid yàlla may ko fan bu gudd mu yàgg fi loolu ànd ak wér di ko ñaanal tamit sëñ sëñ sëñ Babacar Mansour Sy xalif général des Tidianes ak xalif généraux yi nekk ci réew mi ñëpp nag fàttewuñu kenn man suñu xarit chrétien ñëpp ñu ngi leen koy ñaanal di leen ndokkale ci bés bi waaye tamit di ñaanal sama soxna Adja Khoudia yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf Adja Khoudia yàlla na fi yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal te ànd ak wér mais euh, maître Madické Niang Euh, bëgg nañoo xam tey yàlla nan ko dundee sa tabaski. ak ban xar nga rey. sama ta <laughs> xar bu ndaw rek mburtut. mburtut waaw mburtut bu ndaw la boo demee ndar tooñaa dañ koy woy xar bu ndaw lay doon boo xam ne graisse gu du bëri. graisse gu mu ne feebar yi dafa bëri macha allah ba nga xam ne léegi li ci am sax solo mooy fexe sax ba jéem a rey xar bu ndaw boo xam ne du am maladie bu bëri. du am maladie feebar yooyu nga xam ne du am sa ay jàngoro waaye tabaski yàlla def ci bëri sutura. Mhm. xar lu mu doon doon bu fekkee mën na pour tabaski nag du am benn jàngoro ndax yàlla moo ci wàcce sutura mhm. waaye gis nga ñu ndar dar yi bu ñuy def suñu tabaski dañ koy wàjji wàjji suñu yàq ba pare mhm. yakalante bi yàkkalante bi da ngay gis ku njëkk pare yàkkal demal joxal ma ko sa bàjjan diw joxal ma sa bàjjan diw mu nekk yàkkal cosaan loolu mooy loolu mooy fête de la tabaski moo tax ndar ndar na nañ ko defee mhm. di ko defee nag ci anam bu rafet boo xam ne dëkkandoo yi cousin cousine voisin voisine ak parents yëpp ñu daal koy bokk nag def ko nag loo xam ne wax dëgg yàlla day rafetal ak aaral bés bi ndeysaan wax na dëggal am dañuy def loo xamante ni nii day aaral bés bi seulement day rafetal bés bi waaye maître Madické Niang wax dëgg yàlla doo fi ñëw ba dem te amuñ loo xam ne dañ ci waxtaan ak yow doon nga jàngatee coow mi ci réew mi ak wax jeeg kilifa yi di saaganteeg coow loolu yëpp maître Madické Niang bëgg noonu xam nan nga dundee loolu waaw yàlla gis nga yàlla suñu borom lépp lu mu def rek tubaab bi daal na koy defaat nga ni tubaab bi daan na koy toppandoo ci beneen anam. dégg lii soo gisee crayon. crayon ci suuf di am gom. gom boo juumee da ngay effacé. la ilaha illallah. <laughs> soo juumee da ngay yoo juumee da ngay effacé. da ngay effacé parce que loolu moom mooy maanaam astafurlaawu crayon. Euh, euh, nga wax wax ju ñaaw ba mm-hmm. ne boo juumee bëggoon bind ne je veux partir bi moo la gën a aller nga effacé bind aller. di bind aller waaw mu nga wax wax ju ñaaw ba pare ne astafurlaa lii laa bëggoon wax maa ngi a wax dara sax ne astafurlaa jàll nga xam ne sénégalais yëpp dañu war a baalante ak mm-hmm. man de wax dëgg yàlla gisuma koo ne xëy nit nit nit nit def ma ko te yëguma ko naa maa ngi koy baal waaye nag bañ naa ko dama ragal àq nag dama koy wax sax xale yi ñoom aala ci kër gi ak ajaa xujja naa leen bu leen def seen anniversaire yooyu wàññi leen musique bi bu leen déranger kenn te xoolal xool xale yi dëkkandoo yi ndax àq bu la ko nit baalul te gàdd ko rek keroog àllaaxira moo ñuy tarre ndax yàlla suñu diggante ak moom bàkkaar moo ci xew waaye àq diggante ma ak yow la dëgg la kon nag moo tax barke démb bi ñu ma tooñee ci sama affaire kër gi nga xam ne moom laa am fii nii ca ci Gibraltar. ca laa bëgg na ñëw waaw ñëw ca. waaw jërëjëf <laughs> ngeen gis mooy maître Madické Niang mais li ma gën a neex ci moom mooy waxtaan ak moom dal gi ak tey gi wax dëgg yàlla foo na natt wees na ko mais maître Madické Niang coow kër gi léegi xanaa fu mu toll nii. macha allah gis nga président euh, moo tax na pour mu bañ a gàddaaq parce que moo fa fal ki nga xam ne moo fa nekk te kooku ki ka fal ñun ñoo ko fal. ñoo ko fal parce que Sénégal man si Sénégal yi laa bokk. ñun xëy dama doon xëcc ak moom. dëgg yaakaar na fu toj naa ko waaye yàlla def na moom moo falu. Mhm. léegi nag moom ci boppam kam fa fal teg ko fa kooku moo tax doxalul yoon. moo doxalul yoon parce que li nga xam ne mooy sama kër la maa ko jënd. daa day joxe avance reliquat bi ma ñëw pour fay ñu ne ma la ngay fay da nga koy dolliwaat parce que kër gi dépassé na te ñu waxaale ko. Mhm. nga jaay dàll bi na ma ñaar téeméer man la dama lay avance téeméer nga ne avance téeméer dox boo waññee ko ñoo jox ma yeneen téeméeri waaw ma dem ba ñoo nga ne ma déedéet daal yi <laughs> dama koy yokkaat waaw loolu loolu mooy lan loolu tooñ la te man avocat laa mhm. mën naa nekk avocat défendre sama bopp dëgg la dëgg la <laughs> mais dëgg la waaye dama dul gàddu àq donc gàddu àq may wax nag le président Macky Sall nag na régler problème ba le plus rapidement parce que àq boo rek la moo ma des sama diggante ak ñoom bu waaye gis nga nag maa ngi ba baalu àq tamit képp koo xam ne tooñ naa la te yëgoo yëgoo ko waaye di di wax nag na saaga yooyu nga doon wax noonu yooyu ay ay futilité rek yu ndaw la ñoom la seen biir. Mm. waaye na xam naa ku gis Cissé Lo ab murit murit ndigal lay wooye te ba ma déggee ñu ne dem na seet sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général ak lu murit ak sëñ Moussa Nawel mm-hmm. yàlla fa yàgg téwér laa naka ñooñu dana ñoo xam teg moom xaw ma nag ci ban xadar lay demee way dootul demee ci xadar boo xam ne dañu dégg ci lu ñaaw ndax xam naa xam naa si solo nongo la taalibe la te nit ku nit ku ak ànd ak xadar la waay na xadar gi yëpp boo toogee moom wax ak moom ci yoonu yoonu muritisme wax ko na ab murit du du gaaw a dana hmm. ànd ak dal dana ànd ak dal xaw ma nag ñoom nuñ koy nuñ koy nuñ koy gérer waaye waaw dëgg la yi mi ngi noonu wax dëgg yàlla ñu ngi invité sunu papa sunu xarit hmm. ki nga xamante ni nii mooy mi Madické Niang waaye maître wax dëgg yàlla tey nag dana am loo xam dañ ko bëggoon ci yow muy ndiwinil goo ni da nga koy jël jox askan yi ci egg xam naa xam nga fu mu ne nii di ci télé koy gis dafa wóorutul ndax réew mi ci boppam moo nga loolu dërëm amatu fi xanaa xanaa bu ma la mayee lii dina la neex déedéet déedéet bul xam nga nag mag laa te xale yi ñu nga lu tax ma garaam bu rafet na trop xam nga lu tax ma maay ñaan ndéwénal li nga xam ne dañ ma kaa def tooñ tooñ ma tooñarti mhm. boobu nag mooy président Macky mooy delloo ma samay droit delloo ma sama na avocat doom ma rek ñu ne koo xam ne danga may bës saar boobu mhm. ndax xam naa loi bi nga xam ne mooy défendre li nga ne mooy accusation de terrain situé dans un périmètre boo xam ne da nga une avance mu reste un reliquat du du article 15 loi 45 du 1875 nga xam ne dañ ko def ci cohabitation de l'habitat moderne moderne du Sénégal. yàgg na da yàgg na président sama bopp en tant que victime en tant que avocat. dëgg la ma ci yow loolu laa lay jox ndëwénal. waaw mais mais mais maître maître dafa am loo xamante ni nii wax dëgg yàlla soxla woon naa ko. ndax damaa dégg sa benn interview nga ni euh, tubaab mën naa mën naa saaga te du la gaañ. waaw. subaab mën naa wax. xam ga tubaab xam nga tubaab dafa civilisé. dafa civilisé xam nga saaga dafa ay dagg ay saaga ci waajur dafa rafetul. dafa rafetul waaye tubaab dañ wax fessé. fessé nga ni <laughs> fessé wax na la loo xam ne boo ko déggee. sa mm-hmm. xol day jeex te du jaar sa waajur bu jigéen du jaar sa waajur bu góor tubaab mën na laa wax merde. merde. mooy maanaam wax la yaa ngi may yaa ngi may parle trop ci parle trop. mun na la wax crétin. crétin crétin xam nga bu jooy. Mm-hmm. parce que wax nga ko loo xam ne moom ci xelam da nga kaa xam ne yow da nga sa xel bi dafa neex tekki woo dara. dëgg la waaye sénégalais boo ko xëyee crétin te tubaab saaga la ci moom. te du saaga ci olof. dëgg la waaye tubaab du saaga waajur. tubaab du saaga waajur ah, te doo ko dégg mukk. doo ko dégg mukk nag mun a téye bet. téye wala mun a téye vilain. vilain <laughs>